Laga Zambala Laga Zambala il est vingt une heure et demie mbokk yi avril 2021 Laga Zambala mbokk yi moo daan ki nga xamante ni mooy général Malika Laga moo daan caatu waalo demi-finale final baa noonu fii ci arène nationale moo ngeem moo ngeem Laga plaqué na ko léegi Zambala takk na ko Zambala takk na ko Zambala Laga Zambala moo ngeem moo ngeem Laga moo ngeem moo ngeemul Laga rasu na Laga Laga Zambala Laga Zambala jàpp na ko da koy daan plaqué na ko oh daan na Laga Zambala daan na Laga gis ngeen mbokk yi loolu moo fi amoon ci arène nationale loolu moo fi amoon Zambala ngi noonu mbokk yi Zambala ngi noonu. waaw damaa jàpp ngembali ba tax ko mu daw di ma dóor tànk ma bàyyi ngembali daw pegete ko loolu laa moom. kon li nga bëreel moom ñëpp ci muy def ci ñun xam chaque jour day sol blouson am ànd ak ñun bu ñuy dem diin bu ñuy dem géej ak yëpp. kooku at foofu lañ nekk école de lutte Boy Niang foofu lañ nekk ñuy tàggat bu baax waa Zambala.